dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyee xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu réew mii di Sénégal sëy ni muy tase maanaam daat nay bëri ba jégg dayoo maanaam sëy ni muy tase moo gaaw yéenekaay gi def na ci ab gëstu bu yaatu ak lan moo waral maanaam sëy di gaaw a tas ak ñi nga xam ne ñoo sëy ba tas maanaam ban comportement la ñu war a amee Fatou Touré Thiam mi nga xam ne moo nekk ci réseau Siggil Jigéen daat nay wax ne bëri na ay jigéen ñoo xam ne maanaam bu ñu sëy ba tas dañuy am mbetteel waaye nag am na ci loo xam ne maanaam tas gi solution la ngir nag libéré yenn jigéen yi maanaam psychologiquement ndax nag am na sëy yoo xamante ni tas moo ko gën yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa benn xale bu jigéen boo xam ne dafay nettali nee na moom dafa sëy ba tas waaye na jamono ji am na ko muy àndal waaye ki muy àndal yaayam moo na ko doo fi takkee ku sëy ba tas Amidou Ba di socio anthropologue la mu xam le nee na bëri na ay jigéen ñoo xam ne bu ñu sëyee ba tas ñenn ñi dañu leen di xoolee maanaam ñoo xam ne dañoo laj maanaam ñu échoué te nag demeewul noonu bëri na ay jigéen ñoo xam ne war nañu lan moo tax seen sëy tas ak naqaru xool wi nga xam ne moom la ñu si amee am na ci koo xam ne nee na li tax ab sëyam tas boroom këram daf koo waxoon na ko maanaam dakkalal sa njàng mi bàyyil sa njàng mi da toog si kër gi loolee xale bu jigéen bi lànk kandaare si la picco ak mbaaloo maanaam tàmbale dox seen diggante sëy ba tas am na ci benn xale bu jigéen boo xam ne nee na moom da doon bëgganteeg benn xale bu góor yàggul dara maanaam xale bu góor bi takk ko waaye xamutoon ne xale bu góor bi dafay naan sàngara ñu dem ay weer mu gis na jëkkër ji commencé na di drogué te bu drogué ba na saa daf koy dóor ba maara moo yàq ab sëyama jigéen ñi nga xamante ni ñooy sëy ba tas nag maanaam wolof ni mu leen di woowee maanaam mooy caga baatub caga nag jamono ji maanaam ku ko dégg dar sa nopp am na ñu bëri ñoo xam ne boo leen ko waxe sax maanaam nanguwuñu koo dégg dañu am loolu lu leen metti te baatub caga maanaam tekkiwul lenn lu dul jigéen gu sëy ba tas yéen kaay gi di vox xëy wax ci sénégalais yi nga xam ne ñooy faatu bitim réew bu ñu sukkandikoo ci njiitul horizon sans frontière di Boubacar Seye nee na juróom-ñetti weer yi lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay doomu réewum yoo xam ne faatu nañ bitim réew gouvernement bu Sénégal maanaam da leen a du mooyu maanaam faale wu leen fulaalu leen gouvernement bi amul benn benn benn yitte boo xam ne def na ko ci doomu réewum Sénégal yi nekk bitim réew maanaam ñu leen di rey comme ay muus kàddu yi Boubacar Seye la yéen kaay gii di libération xëy di ñu xamal lan ñu kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoom jamono ji mer nañu ba maara day taali li tax ñu mer nag dafa am seen benn naataangoo boo xam ne ñoom dañoo jàpp ne dañ ko toroxal ndax ki xam ne moo jiite woon tribunal bu Podor dafa sous mandat dépôt benn kilifa ñu jële ko Podor andi ko Thiès ci cour d'appel bu doxalin woowu nga xam ne waa justice doxalee nañ ko loole moo metti loola union magistrat du Sénégal ndax nee nañu kooku nga xam ne moo jiite woon tribunal bu Podor maanaam liggéeyam rek la doon def yéen a kaay gi de la témoin mu xëy du ñu xamal lan ñu anticiper philosophie yi tey jii la jamonoy coronavirus yéen a kaay gii di Rewmi Quotidien mu xëy du ñu xam lan ñu am ne benn agent buy liggéeyee inspection générale d'État moom nag dañu ko joxar bi baaraamu tuuma ci ay ñaawteef yoo xam ne daan na koy def niki démb maanaam la ñu ko daal di attee li ñu koy tuumal mooy détournement de mineur maanaam yegg ci benn xale bu jigéen bu ndaw daal di koy caxte-caxte ba maara de taali xale bu jigéen bi nga xam ne agent inspection générale d'État boobu yegg na ci kawam fukki at ak juróom-ñaar rek la am ba pare moom agent bu inspection générale d'État bi ñoo ngi koy tuumaal ci lu jëm ci mbirum féticheur maanaam tëj nañ ko lu toll si ñaari ati kaso benn weer la tëdd yéen kaay gii di Dakar Times mu xëy du ñu xamal na ñu njiitu réew mi président Macky Sall lu ñu ko mën a tuumaal tamit maanaam jox na cër bàyyi na xel ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ndax bëri na ay ndaw xamante ni Macky Sall daan leen di takkal ay ndombay tànk yéen kaay gii di a ci agresseur yi nga xamante ni ñoo ñëwoon ci benn boutique chinois ci allée Centenaire maanaam dugg ca boutique ba Olimé ñi nga xamante ni ñoo chinois yi jël seen koppar yóbbu ñooñu nga xam ne ñoo def ñaawteef bi am na ci koo xam ne ba léegi nii nee na mes na mentañ waaye kookee àll jaañ la tudd te nee nañu kër Muudu Jaañ fa la dëkk yéen kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal ñu am na benn marchand ambulant bu tudd Dame Ndiaye boo xam ne soo muy tulee juróom-ñaari ati kaso ko tëdd ci kaso bi ndax ko jàpp ak lu toll juróom-ñaar ci ay millions maanaam faux billet yéen xëy di ñu wax loo xamante ni lu doy waar a doy ci réew mi dafa am benn directeur général société nationale nekk membre APR moom directeur général boobu nag benn xale bu jigéen moo ko filme maanaam mu ne dong si mee ko ba seet ci la def xale bu jigéen bi filmé ko waaye nag bi mu ne xale bu jigéen bi filmé na ko directeur général boobee nelawatul ba yandoor jëndal na xale bu jigéen bi ab oto jox na ko xaalis bu bare bare ndax xale bu jigéen bi da ko doon tànkaafu maanaam bëgg a jël vidéo bi dugal ko ci réseaux sociaux yi yéen a kaay gi du sunu ñu xëy fekk fa mbay ndewaan mi nga xam ne mooy coach Tapha Tine daan dànkaafu Boy Niang 2 nee na Tapha Tine amul benn mbër mu nekk ci réew mi maanaam bu ñemee di xeex ak moom